ñoo leen di siyaar daa mel ndéegu ngeen fekk naa leen lekk ngeen laax ne waaw lekk ngeen ay cromagnons yu kenn xamoo waaye lépp sant la rek dañuy sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wassalaam mm-hmm. di feddali sunu njëbbal ak sunu yaakaar ci cheikhul xayri Mawlana Cheikh Ibrahim Mbacké ibnu Serigne Mbacké Madina di ko ñaanal sama borom defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakal cheikhul xadim magam ju baax ji nga xam ne tey moo toog jotaay borom mat ñu di ko ñaanal ci ceen bu diis bi nga xam ne kurul borom attin di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla taaw ne mooy ñaanal rek taalibe Seydil Boubacar Sy Ba sama waajur wu jigéen sax mbay si ngoon njaay birafal si nga jëre fu mu tëdd yàlla na ko fa yërmande suñu borom fekk moom ak ak ko fekk di ñaanal suñu baay ak suñu tànt di ziar madame yi di doom yi di ziar après madame yi. ah. la liir la liiru waxoon. la liiru waxoon. c'est quoi ça. mais après madame rek la. c'est jëlee loolu votre votre interprétation. booy yow da ngay nopp wala nga génn ndey seram. Magar yow yow da nga mais dinaa fay fii ñëw. yow am si yow ayca tey ñu fekk la kër Balla Gaye muy tudd doomam. ku xam buur muy yëngu ci làmb. Hmm. sa diggante ak Balla Gaye 2 yaakaar naa ne kenn ko laaj sa diggante. waa Simba man ak moom relation bi ñam mooy relation murit ak mbokkum taalibe hmm. parce que man mënuma am des relations yoo xamante ne que dafay basé ci jigéen wala ci xaalis wala man ku ma bokkal suñu tubaab rek bëgg naa la. te moom dañu mës a toog di waxtaan suñu tubaab ba ku nekk jooy kottu moromam. Hmm. ma xam ni kii li ma yëg lay yëg. néew na ñu déggal téléphone wax waxi làmb barke Cheikh Mouhamadul Moustapha mm-hmm. bu ñu waxee toujours ci sëriñ bi li ma sëriñ li ma te loolu yàgg na nag ça fait bu ma juumul ëpp na douze ans donc on a une relation bu saine këram gii defe naa ne bi mooy troisième fois ma ñëw fi yàlla seere na mm-hmm. donc kon bari ma fi ay temps mm-hmm. waaye daal jàpp gi ma ko jàpp mooy bëgg gi mu bëgg sama xarit. dañuy faral bu amee bis ba ñu bari naan neexoo ko. Mm-hmm. danga ko bañ. ñu bari boo déggee ñoom Fawzey nekk ñoom xam nga Balla Gaye 2 dama wax ci benn ay sorties yu bari mooy Balla Gaye 2 ne mérite pas de parce que Balla Gaye dafa bokk ci piliers yi téye làmbu Sénégal Balla Gaye de bokk na sur les lutteurs les plus vendus. Mm-hmm. Balla bokk na sur les lutteurs yi ëpp li ñuy jaay kon waru disparaître subitement te suñ ko encouragé woon ci yoon bi mu jëm Balla Gaye du defar retour yaa man yaa kii déedéet biñ ko xoolee gis ni que ça ne dañ ko ni ça ne va pas boole ko mokke ko nag ndax xam nañ ni lakkat la borom jom la liiru jaan mi xaw na fee xëm. lu ne yàq na ko. Hmm. mais Balla Gaye 2 heureusement jël na message bi positivement. Hmm. il a tantôt compris dem liggéey. Hmm. diggante Balla Gaye Tapha Tine quatre-vingt-dix pour cent des Sénégalais man bokk moon ci ñu gëm. non parce que waaw waaw non xam nga. Euh, bala ngay di est incalculable te perte doon combat bi catastrophe lay doon ci yow te amoon na benn longueur d'avance ci Tapha Tine mais dafa daan donc changé wul mentalité bii ko daan n'est-ce pas teel wax naa ko ñaata change pas sa mentalité te Balla bi ma gis bërki dem muy Balla Ndiaye newoon naa ko bi ngay bëleeg Tapha Tine da ngaa reewoon waaye léegi guddi yu ñu toll tembe da ngaa xamadi. koo ko wax. Simba. Ah. jaral sa xel mi néew fi wàccal si téléphone yi ngay xalaat lépp xam naa. Ah. dafa reewoon bi mu dajeeg Tapha Tine mais léegi daa xamadi mais xoolal lim Balla Ndiaye ba léegi dafa gën a dafa xamadi lu muy waaj. lan lay pare. lu mu bëgg. kan lay sóor. du ñu ay xale. mais lan la nga jël xam nga makkan makkan xaar déggoo li ma wax. liy xeeñ. lu muy xaar. bu ko neexoon dem France vacances yi. mbaa mu dem New York. waaye jàkk ji ci parcelle bëgg na fi duggaat mbaa jàkk jee ci jàmm gën. <laughs> buur. <laughs> léegi yokk naa sa garaat tuddee naa la abu dollar. sama papa la xam nga dama ni woon beneen ultime confrontation. Balla Gaye ma man man ci làmb je ne dis jamais jamais ay milliards euh, booy ay millions lu mu mën a am ay millions. ma kan deux million bu fanaanoo seen kër jàmm du fa am da nga yàkkamti fajar gi xar ba nga xam foo ji te wóor na leen diggante diggante yaa oustaz ak Simba gàtt gàtt gàtt trois cent millions dina fanaan parcelle Hmm? trois cent millions kër gu mu fanaan jàmm du fa gis nga bu ñu naxante cent cinquante millions nga yóbbu c'est pas hmm. que waaye Modou Lo moo ko wax Modou Lo sportif de haut niveau hmm. Modou dafay vivre à travers son mooy làmba Balla Gaye di dund à travers sonar mooy muy làmba du ñu ay ennemis ay dawkatu dépense la ñu pourquoi nga bëgg a privé Balla Gaye taxaw fee ne empereur Modou nekk roi des arènes ngal leen bu leen bëri ndax lan yaa ko fi waxoon. waaye ay waay booy. xaalis ñëwut rek booy su booy déggoo man la 300 millions kër gu mu xanaan jàmm du fa am xale mm-hmm. mm-hmm. maanaam et bu am dalil. Mm-hmm. tey Modou Lo. keroog ba muy aji màkk laa ko ku aji màkk doo doo na bor te. te aj na tawaaf na. umra na. daw na diggante Safa ak Marwa. dem Musdalifa dem Baqiya. ba noppi amee bor. ajam nangoo gul. man mooy bor bi ah. Balla Gaye Balla. ah pour luy a neex a sànni. Abu ay Abu Dora Abu dañuy xuus jëm ci le 24. non mais avant <coughs> mais Modou Lo n'a jamais dit que Modou n'a jamais prononcé le mot dootuma bëreeti ak Balla mais non Modou Lo dafa ni comme que soo bëree pare na li ma dégg man moo ko déglu dama du bëree revanche dafa ni dañu sonn ci revanche. terme boobu la damay gis ni que may xale yi chance dañu sonn ci revanche yi mais revanche bi exceptionnelle la. Mhm. su bëree ba bàyyi Modou Lo a plus besoin de bëre ak man maa la wax lii mën bu hmm? barke alxuraanu karim Modou Lo bu bëree ba bàyyi daan Balla Gaye bu dee du tan hmm? amee si hmm? ñaari façon yi mu moom la ak contexte ba ak ca na ma ko daane. Modou Lo a été humilié. Mm-hmm. deux le vrai sens du terme. ñu baal ma des fois dañu naan buur dafay kii mais li ma wax mooy li am. Mm-hmm. ci histoire làmb façon bi ko Balla Gaye daane mbër daane ku mbër. Mm-hmm. pour dire vrai. maintenant sportif la. Balla Gaye 2 ne s'attendent pas Balla Gaye 2 au contraire mhm. si toutefois Siteu devient le nouveau roi des arènes. Mhm. ñu jëm ci le 24. mais ma Balla Gaye 2 soxla Modou mhm. bu ko Siteu daanee pare nga ci. waaye bul fàttali ma kan Siteu moo ko ne xaar ma arrêté caaka jaay. maa ngi dem xaar ma arrêté caaka jaay. est que Siteu sera le nouveau roi des arènes. ah le 24 lay lay leer. gëm naa ko kay waaye le 24 lay leer baasi kitaab bi sulli gëm nga ko yow. gëm naa ko kay. fi mu ngi déglu de. maanaam li mu rayante ci carrière am ba yegg fii ba bëri ci roi des arènes moo tax mu gëm ne war naa mën a doon roi des arènes. yan argument face à Modou Lô. face à Modou Lô bari na. comme Modou Lô mës na bëri taay bu mel ni Siteu ci làmb. fooy fooy bàyyi ku mel ni Balla Gaye ku mel ni Gris Bordeaux ku mel ni Lac de Guiers là est-ce que ni ba muy ba muy dégg xarañ ba muy dégg xarañ la xeere woon kenn mënul ci moom dara jamono di dox mu aj màkk ñëw dégg yaa oustaz mm. gën a xeere Siteu bëgg na def benn exploit boo xam ne làmb dootu ko fàtte te loolu mooy li am te mooy chose aussi normale Siteu veut devenir un roi des arènes mais Siteu ne veut pas battre Modou bëgg na jël couronne bi yóbbul ko jàmm gën hmm. mais bëggul daan Modou Lô magal keroog yaa ngi woon te signature de contrat ay wax nga fi magal ci xaalisu làmb la la ngénte magal ci xaalisu làmb la ñu la daan dundale gis nga Modou gis nga Siteu qui le plus près delloo waat delloo naa la question bi Modou le plus près illa baada mhm. lan mooy expliqué loolu. nga yaakaar ne diggante le voilà le 24. si dëgg la saa un mois nangam 4 jours pour nga jur fi doom sax. mu xam a nga ko wax Ama Baldé mu trop coow xam nga du sañ a wax. mooy je je tout simplement dire la vérité gis nga lamb mhm. makan suba génnal waxee ci nu mu la neexee war na si c'était en football dañ koy toléré. Mhm. mais pourquoi pas ñun làmb ñu bëgg a nekk ay sauvage ba ku wax ci làmb ci façon bi nga gëm ñu génn saaga sa ndey avec la complicité de certains de nos confrères eh, le cas de mais est-ce que raison mais buur man yendu naa cybercriminalité ba tey ndax booy yi yenn naa section de recherche ba taay. yàggul dara sax ndax booy yi donc soo mënee jël nit ne ci man nga doon xool ba bëgg li ngay def ne ko xam nga diw mooy la xaw ma ko nga ne ko diw mën na la nangam bu na saaga yaa ma waaye nag lépp xaj na ci man. mais buur. yaa jaboote lu buur. aja wuyul araba comme ni ko Makan waxee. Ama Baldé dañu gën ñu gis façon de communication boobu Balla Gaye léegi exemple donc surtout selon internation bi nga xam te ni moo ngi koy xewee nga koy waxee nit ñi duñu jàpp ne benn instant saboté la foofu la ko nit ñi yóbbu selon internation bi ngay demee mais au vrai sens du mot est-ce que du source de motivation selon sa communication ci ñoom ah, moom la war a doon ah. ci moom Siteu hmm. dafa nekk benn source de motivation sur la personne de Siteu hmm. Hmm. mais est-ce que source de motivation la ci moom au jara kuy dajeeg mutloo soo nelawee say bokk duñ nelaw jara mutloo seen mutloo il est unique dans son genre mm-hmm. dama leen ni gétt gu Ama Baldé mi ëpp sañ-sañ dugg mm-hmm. jëlew fa dara mm-hmm. gétti gu Eumeu Sène mi dàq bëri ci àddina dugg amu fa dara gétt gu Boy Niang mi ëpp ay pexe dugg jëlee fa dara est-ce que tarkindaay mën nañ fa am dara damay laaj. mais nag làmb ah, amul sport damay laaj. jara damay laaj. sport amul logique. mais jara man damay laaj. da ngay laaj. Ah, foofu damay laaj kon ñu def fa point ah, d'interrogation. la. waaw waaw loolu lay wax ni kay. mais Père Bour. dëgg yàlla yàlla sama borom moo ma tiim. néew ma du am. Hmm. su amoon suba je j'applaudis. su amoon suba damay xam ni. Siteu a écrit son nom sur l'histoire de la que Siteu moo dàq bëri bu moo ko gën a violent. déedéet. moo ko ëpp explosivité. Mm-hmm. moo ko gën a résistant. moo ko gën a pare mais comment. Mm-hmm. Modou Lo bu perte combat bi day yàq xaalisam. dans l'avenir. Mm-hmm. Modou Lo yii muy bëri yëpp liggéey na scénario bi depuis 2017 2018. Hmm? wallahi avant moo jël Siteu laa ne carrière am ñii la ci visé Siteu Sa Thiès Oumar Kane Reug moo di il suit sa logique hmm. ca Boy Niang Ama Baldé ñu ko dafa dressé benn plat hmm. dem liggéey ko ba pare na gaa ñëw leen waa léegi xale bi la naan nañ sànnante xeer te ngaar bu xeer bala ngaa fori xeer mu toj sa bopp mm-hmm. makan mm-hmm. su ma nee takbiir mm-hmm. da ngay naan allahu akbar ma loolu diina ju bees tàq la ah. tabax jàkka ju bees tàq ca barka jël ba def ko naayim ñoom maasir ba yore keesu jàkka ji ñoom assurance ñooy root satala yi ñoom laay pétagor ñooy lal ba yi waaye ooy papis dans tout ça ak lu damay laaj damay laaj du bataille psychologique damay laaj du psychologique bataille psychologique par rapport gëmuma ko yaa quelque chose maa ma kat ah? yaa yaa problème y' a problème. si. bu ñu nax lu ñu bëggee ñun. parce que ni mu fonkee Modou bëggee lam y' a quelque chose lu xew. Hmm. Hmm. ñu ko wax. bi bari ki démb la yàggul. yaa man ay may nga laa y' a problème. Ah. xoolal mbir mi dessiné borom xel nga y a quelque chose lan kii cloche mais absence su Papis mën na ñëwul woon sax yàq ci li muy def d'accord nga combi booy kii xarañ la woon kii duut loo la mbër la woon kii athlète la fi làmb toll daf ko dépasser pour aspirer au niveau international yii gars yi def defatu ko tey Siteu gëm na ni mën na daan Modou Lo soo ko laajoon tey ci waxee ak ku lay temps wala quarante pour cent yaakaar na ko ci mystique pour daan Modou Lo ah. te mystique gëmul te Siteu te Modou gëmul hmm. lu dul entraînement hmm. ak wow koŋ ak contact na ci suuf seeg joor gii daan Siteu d'accord nga combine d'accord le mot conduit man seytaane la malfaiteur la génnoon naa fi wax lu mel noonu waaye xamul tax ma effacé ko ah. saa yu si mba daane ku ci nekk ci ndam nga jógee ah. nga ngay tamante baaram tóor na jóob tooy tóor na moora ngi tóor moora ngi tóor suuf waaw da koy tóor daanu